alhamdulilah walsalaatu walsalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa asxaabihi wa man wala amma baad mbokki jullit yi ñu xam ne diine lislaam day diine la joo xam ne bu ñu xoolee màggaay bi màgg màggaay bi màgg ci ay ndigalam ki tereem xool màggaayam ci ak ràññikoom ci ay principe yoo xam ne yu tegu ci mbaax la yu tegu ci njub la bu ñu xoolee matale gi nga xam ne matale na ko ak dox gi nga xam ne dox na ko ànd ak jamono ba lépp lu ñëw am place ci lislaam ci mbaax xool limub li nga xam ne sunu borom tabaraka wa taala mi ngi koy defal tawfiix ci ay doomi aadama ñiy dugg ci diine jooju buñ ko xoolee danañ gis ne loolu li ko waral ci biir lislaam ji ci boppam la nekk li ko tax di dund di ko tax di jëm kanam di ko tax di baawaan di tasaaroo loolu jëmmi lislaam ci boppam da ko làmboo loola lenn la ca mooy xam gim xam palaasu doomu aadama ak cër bi nga xam ne sunu borom tabaraka wa taala mi wàcce diine jooji jox na ko doomu aadama amut lenn lu gën a rëy sunu boroom tabaraka wa taala mi bind nit moom ko mu waxal boppam ne wa laqad karramna bani aadama wa xamalnaahum fi lbarri walbaxr man mii maa teral doomu aadama maa ko teral ci jéeri ak ci géej wa razaqnaahum min altayibaat nee na maa leen wërsëgale lépp lu baax te lew wa faddalnaahum ala kathirin mimman xalaqnaa tafdila nee na lu bari ci lu ma bind doomi aadama yi moom a leen gënal loolu cër bu mag la boo xam ne sunu borom tabaraka wa taala doomu aadama la ko jox ñaareel bi sunu borom tabaraka wa taala ci alquran mu leeral nañ ne nit kenn du ko forcer ci pas-pas ne ko tey nga gëm lii moo tax borom bi ne laa ikraha fi diin kenn du forcer kenn ci diin qad tabayyana rushdu min al ghayy dëgg ak neen kay leer na yéen leeral rek moo leen ci war waaye bu leen forcer kenn sunu borom tabaraka wa taala wëlbatiku ne yow wooteel ci dëgg rek wa qulil xaqu min rabbikum dëgg gi nga xam ne moo tukkee ci sa borom nekk ci alquran ak sunna wax ko leeral ko ba nit ñi dégg ko su loola jàllee fa man shaa fal yu'min kum neex nga gëm fa man shaa fal yakfur kum neex nga weddi ñoom ñëpp ci seen kanam boroom fa lañ jëm kenn ku nekk mu fay la la nga nekkoon kon laaye yooyu buñ ko xoolee muy ay texte yuy jóge ci alquran al karim dañuy gis ne li war mooy nit ñi kenn ku nekk ñi woola wax la dëgg leeral la li pas-pasub diine akuk njubam waaye ni ñu bàyyi la ak sa conviction nga tànnal sa bopp li nga gëm nga gëm loola nekk ci kenn du la forcé ci lenn kon diine lislaam bokkul ci ay jubluwaayam li ko tax a jóg maanaam du objectif ci diine lislaam bokkul sax ci ay moyen ne dafa jóg di forcer nit ñi ne tey ngeen dugg ci lislaam te fekk kooka amul conviction ci loolu maanaam loola doyu ko daa war a gëm door a dugg ndax loolu li ko waral mooy kiñ forcé ba mu dugg te gëmut kooku amul njariñ day yàqal nit ñi sax ci biir géewub lislaam waaye amalu leen njariñ loolu moo tax lislaam tëre noonu lii di ñëw nag ay tomb la yoo xam ne yu jaadu ñu waxtaane ko ci minbar ci jamono yi nga xam ne ci lañ toll tomb ba ci jëkk moo dina sunu borom tabaraka wa ba mu bindee asamaan ak suuf bind nit wàcce ko fii ci suuf daf koo digal dafa bëgg moom sunu borom tabaraka wa ci wàllu ay ndigalam ki tereem daa bëgg doomu aadama yooyu ci kaw suuf ñu dund ci jàmm dund goo xam ne dafay ànd ak stabilité ànd ak euh, harmonie li ñu tudde alwi am nit ñi mën a bennoo mën a jege mën a jàppalente ak fuñ mën a nekk jàmm daal moom la sunu borom tabaraka wa bëgg ci doomu aadama yi ñu dund ko ñaareelu tomb bi moo di sunu borom tabaraka wa taala bi mu yónnee ay yonent wàcce ci ñoom ay téere dafa jublu lépp luy xeetu tooñaange ñu yëkkati ko mu jóge ci suuf wàcce lépp luy maandute mu justice ci kaw suuf moo tax sunu borom tabaraka wa taala mu ne laqad arsalna rusulana man de maa yónni samay yonent بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ma wàcc ay téere boole leen ak ñoom ak nattukaay yoo xam ne yi nattukaayi xel la yi nattukaayi diine la waaye lu tax li yaquma naasu bil qist ngir nit ñi mën a dund ci ak maandute maanaam kenn du tooñ kenn ñetteel ba moo di ne bokk na ci ponk ak fondement yi nga xam ne ak dundoo ci jàmm bokk di dund nekk ci jàmm moo ko lal muy kenn bañ a tooñ kenn jàmm ngir mu mën a am tooñ def fi jóge tooñ gi moo xam dafa jëm ci diineem rawatina nag mu jëm ci diineem ndox nit ki nga tooñ ko ci alalam walla ci deram wala ci yeneen mën na ko woyofal waaye tooñ gu jëm ci diine ak pas-pas ak nit ka la mu gëm kooku wattandiku ko dafa bokk ci fondement yi nga xam ne mooy tax doomu aadama yi mën a nekk ci kaw suuf di dund ci jàmm diine lislaam nag xam ku mu xam loolu moo tax mu jàngale foofu njàngale moo xam ne raw na fi lépp lu mu mën a doon lislaam dafa jàngal jullit bi ne ko benn yonent ci yonent yi rek boo ko weddee weddi nga yonent yëpp xoolal loolu ak maadute gu gën a rëy loolu manoon na ne yem leen ci seenub yonent mooy Muhammad ibnu Abdullahi sallallahu kooku laa yónni ci yéen gëm leen ko topp leen ko mu jeex keneen ku dul moom mu leen ko faale bu ko neexoon mu wax loolu waaye jullit bi gëm ne damaa gëm yonent bi di ko topp di góorgóorlu ci alxuraan ak sunna bu ne woon tey weddinaa Isa wala Muusa wala Ibrahim dañ koy wax génn nga diine lislaam génn nga diine lislaam nekkatoo ci ba ba ngay gëm Ibrahima gëm gëm Isa gëm keneen ci yonent yàlla kon kooku plan bu mag la ci indi jàmm ci kaw suuf ah noonu aw tërin la waaye lislaam yëmut foofa dafa jéggi sax yonent yi nga xam ne yàlla da na a yabal ñépp war a xam ne ay yonent lañ xam ne téere yi wàcc ci ñoom yàllaa ko wàcce ci ñoom waaye lislaam weesu na foofu dem na ba àgg ci ne jullit bi ki yor aw xiram di ko jaamu xiram ndax rek ñëpp xam nañ ne kéefaru jaamu xëram moo gën a rëy kéefar gu mën a doon nee na seen kéef seen xëram yooyu bu leen leen ŋàññi yéen jullit yi bu leen saaga xëramu kii jaamu xëram lu tax mu ne amaana boo saagaa aw xëramam mu saaga yàlla mi nga gëm kon nag wattandiku loolu mooy tax bul bul xas aw xëramam lay dëgg kay na ko leeral ci moom waaye bul ñëw ne ko lii ngay jaamu nangam ak nangam wax ci wax joo ci ñaaw la ndax soo ko defee mu delloo la ko te yow ka ngay jaamu ku baax la te moom li muy jaamu du dara kooku doon tomb bu am solo ñeenteelu tomb ba moo di li ñu tuddee xurriyatu tadayun wala xurriyatu li'tiqaad te mooy liberté de culte ak li ñu tuddee xurriyatu taabir te mooy liberté d'expression bu jëkk bi mooy nit ki am sañ ci gëm diineem beneen bi mooy nit ki am sañ ci lim bëgg a wax mu wax ko ñaari mbir la yoo xam ne benn bu ci nekk àq la ci doom aadama ji yoo xam ne da ko war a sàmmal ñeneen ñi ñi war ko ko sàmmal moom itam àqi sa pas-pas bi nga gëm ñu sàmmal la ko ba kenn du wax ci moom lu ñaaw yow it nga sàmmal ko ñeneen ñi ba doo wax ci ñoom lu ñaaw xaqi li nga bëgg a wax te gëm ko ñi sàmmal la ne da ko sañ a wax waaye nga sàmmal ko ñeneen ñi itam ñu sañ koo wax ñoom ñaar ñoo ñooñi nag war ñëw fénqoo benn yoon muy liberté de culte ak liberté d'expression waru ñëw fénqoo accident warul am seen diggante su fekkee ne comprendre nañ leen te jëfandikoo leen te amut luñ lal ca suuf loo xam ne yàq ko tax a jóg dafa mel ne liberté de culte dafa doon saxaar gi daw ci kaw raay bi liberté d'expression mel ne oto boo xam ne nit da koo dugg di ko dawal kii ci raay bi la jaar kee ca tëli ba la jaar waaye léeg-léeg am raay bi ak tëli bi fuñ dajee su boobaa am na nu ñuy def ba kii jàll kii door a dem waaye nag bu dee da nga ne man sama oto laa yor waxuma la sax ne fa muy dajeeg moom waaye dama koy dawal ci kaw raay bi te saxaar gi du dal ci sama kaw su boobaa li ngay def xamoo ko loolu mooy fénqale mooy fénqale ñaari liberté yooyu nga xam ne dañ ko war a gardeel doomu aadama yi buñ xoolee li nga xam ne moo xew ci du jamono yii rek waaye ca la dellu ci ay 2006 ay juróom-ñeenti at ci gannaaw xam ngeen ne benn journal bu nekk ca Danemark moo jëkkoon a def jëf ju ñaaw jooji jëmale ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yenn journaux yu nekk ci Occident jëlaat ko tasaarewaat ko gannaaw bi ba ci sun jamono ji fan yii nuy dund beneen journal jógati bu nekk fële ca France tàmbali di tasaare nataal yooyu nga xam ne dañ koo jëmale ci personu sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa ci ak anam goo xam ne gu xajam la anam guy teey am xel anam guy wane ne kii bind ku suufe la anam guy wone ne kii ku dese la anam guy wane ne ku ñàkki teggin mooy bind anam guy wane ne ku respecté wut jullit yi nekk ci kaw suuf la kon loolu mbokki jullit yi moom la ñuy dund ci jamono yi ñu xam ne liberté d'expression muy li nga bëgg a wax nga wax ko dafa am frontière yu mu yem nga xam ne waru koo jéggi ndax nit ki mën naa sukkandiku ci liberté d'expression ne lu ma neex wax ak foo mën a nekk nga ne su ma neexee ma jël nit ñaari juróom mu taxaw mbooloo mi taxaw ba ne sama liberté d'expression may na ma ma saaga ndeyam saaga baayam reetaan ko saboote ko wax ci moom lu ma neex suñ ne lii lu tax nga ne kooku dama koo bañ te itam sama liberté laay laay jëfandikoo ndax loolu kenn nangu na ko ndax bokk na ci ak maandotee ak justice lenn ci luwaay réew yu bari tey ak sax ci organisme yu mag yi nga xam ne àddunaa ko bokk dañ fay fekk ay texte yoo xam ne dañuy sanctionné képp ku jalgati or may jaambur moo xam alalam la moo xam ab deram la wala lépp loo xam ne lu ko jege la ak ay luwaayu tar yoo xam ne sax am na yenn diine yoo xam ne dañ ne boo ko tuddee wala nga laal ko danañ la teg nangam ak nangam wala ay xew-xew sax ay événement historique xew-xewi taarix yoo xam ne ca la jàlloon la dañuy wax ne loola bu ca kenn wax kenn ku nekk da ngay fas taw làmmiñ ñi mi woo caa wax ñi ca woo caa bind cib journal ñi mi nataal ndax boo ko defee xam nga li lay séentu waaw ndax ak maandute la lu mel noonu ñu teg ko ci ay loi ba noppi wëlbatiku ci même réew yi ñu teg loi yooyu ñu ne mbir ma bu ajoo ci lislaam ak yorentub lislaam ak téereb lislaam moom su boobaa sa liberté d'expression daf lay may loola neex nga wax loola neex nga bind loolu du ak maandute te it doonut luy indi jàmm ci kaw suuf juróomeelu tomb bi moo di ne mboolem nit ñiy seetlu te am ay xel xam nañ ne boo demee Occident nit ñu xelloo nga fa ñu am xel te xam lu jaadu te ñooy ña a gën a bari am fa nag nit ñu néew ñoo xam ne ñu ñàkk ay xel lañ ñu ñàkk xam lu jaadu la boo ñëwee fii fi nu nit ci jullit yi nga gis ne li ëpp ci jullit yi ñu xellu lañ ñu xam lu jaadu lañ waaye ñoom it am nañ nag ñu néew ñu ne ci seen biir ñoo xam ne ñoom it jëfandikoowuñ seeni xel lu jaadu it léeg lekk duñ ko xam su fekkee nag dañoo bëgg adduna bii sécurité nekk fi ak jàmm société bi nga xam ne mooy société bi adduna ñi nga xam ne ñoom la fi yàlla jox xel ñu defar loo xam ne dana mën a régler fenn fu nekk ña fa nekk te tënkuwuñ ci xel tënkuwuñ ci njub ñu mën leen a régler bañ jaar ci aw yoon mbir kët boo koy faj mu mën a doon dangay xool sabab bi tax lii am nga ne naa faj loolu ki yor ab góom weñ yi lëjal ko da musal ko ci weñ yooyu du mooy nga dëkk guddeeg bëccëg rek ngay ump yor yor ab sér wala nga yor eh, wantaay di upp rek ne da nga bëgg weñ yi jóge fa déedéet góom bi ngay faj su góom bi fajoo weñ du dem fu dara nekkut kon looy faj lu ne dangay faj sabab ba kii daa yor ak juróom di ruur toolub kii xuloo dox seen diggante leleen di atte mooy boroom jur gi na tey ak juróom su duggul ci toolub kii coow du am kon noonu na mbir mi demee su fekkee ne dox nan ba gis koo xam ne dafa xëy di jalgati diiney jàmbor di wax ci yonentub jàmbor di wax ci téereem wax ju ñaaw ngir ñàkk tënku ci xel ak njub am keneen ku jóge fële moom it tënkuwut ci xel ñëw def njaaxum gu rëy delloo ko kooku nga ne soo koy faj dangaa war ñëw ci ki def njaaxum gi ne kooku moo def lépp te xooloo ki indi sabab soosu loolu bokkul ci indi jàmm jaaduwul ñi àndandoo ñëw fekk ko ki nga xam ne moo indi sabab si ñu ne dañ koy taxawu dolli ko alal taxawu ko ànd ak moom woo àdduna ñi ñëw taxaw ànd ak moom ci kaw ne kooku ay njaaxum lay def yoo xam ne da ko jëmale ci diine jullit yi kooku jullit yi duñ ko nangu ba ca tegu mooy li ñuy gis fan yi <clears throat> ci nataal yooyu nga xam ne moo am ci réew moomee ca France lu bari ci ay mbooloo ñëw taxaw ak i njiiti réew sax ngir dëgëral la xew foofee ci liberté d'expression boo xam ne daa tegu ci kaw ŋàññi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy jëf joo xam ne jëf ju àndut ak xel la ñu ñëw taxaw foofu ñoom ñépp ne dañoo ànd ci liberté d'expression ba noppi kenn ŋàññul journal boobee la mu def ma ne loolu it bokkul ci lii indi jàmm ci àdduna la jaadu woon mooy soo nee dama gëm ne nit kët lim gëm sañ na ko wax boo taxawee foofee nga ne leen waaye nag nangam ak nangam di ku koy wax moom boo wëttuwut la cay tegu diisut xam lu mu doon mbokki jullit yi kët ñu xam ne jullit bi ku bëgg a xam jullit bi mooy kan mën ngaa saaga ndeyam mën ne la jéggal naa la demal saaga nga baayam mu ne jéggal naa la nga dem waaye nag yonentub lislaam ak alxuraan ku wax jëm ci wala nga ŋàññi ko wala nga saaga ko jullit bi moom soxlaatul dara fii ci kaw àdduna loolu nag ñiy jëflanteeg ñoom ñoo ko xamut soo ko xamul nag mën ngaa jàpp ne li nga bëgg yow Euh, sañ nga koo def ndax ki ngay jëflanteel xamu ku mu doon kon jàmm suñ bëggee mu wàcc ci kaw réew mi ci àdduna bi nañ wattandiku lépp loo xam ne xeetu xeetu tooñ la kon ñoo ngi rafetlu li suñ ministère de l'intérieur génne ab dogal dëkk bii wax ne journal boobu lam fay génne mu doon lu bon lu ñaaw lu jëm ci yonentub lislaam bu ko kenn dugal ci réew mi bu ko ab journal wone bu ko ab télévision wane jëmmi journal ba ci boppam ba mu dugg kooku lu jaadu la lu baax la loo xam ne lu baax ku ko gis ne lii baax na eh, juróom-ñaareelu kàddu bi moo di woo mboolem ndaw ñi ak mboolem jullit yi sax ñu gën góor góorgóorlu bu baax ci jàng siira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam mooy kan xamuk dundam xam la nekkoon ci moom ci yërmaande xam la nekkoon ci moom ci mbaax xam la nekkoon ci moom ci njub xam la nekkoon ci moom ci ak muñ yooyu ñu jàng ko jàngal ko ndaw ñi ak yéene jim amoon ci doom aadama ci mu mucc yéene jim amoon ba ci mala sax taxawaay bi mu doon am ci moom loolu jaadu na noon julli di nu jàng ko jàngaat ko jàngal ko suñ ndaw ñi ñu dundal ko ci suñ biiru dund te wattandiku lépp loo xam ne dafa aju ci jaamaarloo yoo xam ne nekkuloo ci waxtoom te doonut loo xam ne itam lu lay jariñ la loolu lépp lu aju ci e, jaamaarloo bu jëm ci kàttan ki ngànnaay loolu nañ ko wattandiku lu yàq la te du defar teyit wallahi loolu mooy tontu lu jaadu li ci ñu mel ni ñii ñii li ñu jublu dëgg dëgg dëgg mooy lislaam nii mu rafete suñ ko bàyyee nii day dugg fépp ñëpp dañuy mujj dugg fii diinillaahi afwaajan dañuy mujj dugg ñoom ñëpp ci lislaam parce que kat jullit bi ku ko bàyyi ci nii mu mel ak jikkoom yi rafet yii ni mu jëflanteeg doomu aadama yi ni mu fonke diineem ji bu julli jotee mu julli bu woor yo jotee mu woor seen mbooloo yu rafet yi ñuy gis ci biir jàkka yeeg ni ñu organisé wu ku ko bàyyi lislaam day jël lépp kon lan mooy stratégie bu ñu war a jël mooy nañ fexe ba yàq seenub der ci jëf yoo xam ne ñoo koy jëf ñoom loolu la ñu fexe ba gëf la gëf la dugal la ci loo xam ne boo ko defee danañ ca sukkandikoo ne lislaam bépp nag nii lañ mel jikko yu rafet nekku fa nit ñu gàtti xel lañ ñu xamul dara lañ liñ xam mooy jël ngànnaay rek tuur deret su ko defee am nañ lañ bëggoon donte seeni nit a cay faatu sax ñoom am nañ lañ bëggoon ndax lislaam ja doon baawaan di dugg ci biir néeg ya di dugg ci biir kër ya foo xam ne kenn foogewu ko fa nañ ko ne ba ñëpp jàpp ne jullit bi tuurkatub deret la su ko defee ñi ragal ko taw ko suñ ne jullit baa ngoog rek ñëpp tasaaroo daw loolu mooy jubluwaay bi nga xam ne ndaw ñi ak mag ñi ak jullit yi fu fuñ mën a nekk war nañoo wattandiku ñu dugal leen ci loolu takkoo leen ak jikko yu rafet ya melokaan yu baax ya njàngale mu leer ma njub ga jëflante bu rafet ba loolu mooy jàllale lislaam bu occident yi te it ma ngay tasaaroo tasaaroo koo xam ne caaxaan téyewu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko waxoon ne ko fasbir muñal inna waadallahi xaq sunu boroom tabaraka wa yàlla nee na ko li ma la dig dëgg la loolu mu ko dig mooy diine ji day tasaaroo moo tax mu ne ko wala yastaxifannaka alladina laa yuqinuun ñi nga xam ne gëmuñu yéefar yi bu ñu la mën a xëcc ba dugal la ci loo xam ne day yàq sa diine bu leen wuyu ci fépp fuñ la woo bu leen fa wuyu nañ la gis ci lu rafet nañ la gis lu baax waxaat ko ne wattabi maa yuuxa ilayk toppal lii may wàcce ci yow wasbir te nga muñ nag xatta yaxkum allah ba yàlla atte sa diggante ak say noon wa huwa xayrul xaakimiin te mooy ki nga xam ne su attee rek ab di diisu ca mën a nemmat dara lépp njub lay doon lépp maandute lay doon mbokki jullit yi kon loolu mooy diine lislaam diine ju sel diine ju rafet diine ju njub diine ju woote ci jàmm kon jàmmi àdduna suñ bëggee mu delsiwaat tegu ci kaw suuf nit ña di ko dund ci seen jàmm ma ne kon tooñkat yi ñu téye seeni loxo ñu bañ a teel tooñ allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna itibaa waj'alna min axibaai nabiyika sallallahu alayhi wa alihi wa atbaacihi bi ixsaanin ila yowmi ddin allahuma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahima wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima fi lcalamina innaka xamidun majid wa aqim alsalaa